acıtıyor. ñaagima allah yo allah ɓeydu moƴƴere e ruhu ceerno saydou nour denndaangal maayɓe men e maayɓe julɓe fof alhamdulillah ceerno saydou nouru ko jinnaaɗo men enen fof jinnaaɗo l'islam jibinaaɗo mali janngi toon jokkiti jangde mon mauritanie Amini et Sénégal. Dans le monde africain, de Afrique de le dans le France dans de défaut dans l'islam de dans le endam ko France ko de délégation ngaji qui afrique tout le hirnague o fof o délégation hajju abdoul délégation sénégal n'a e fof de o france de france ko de france on hajjore waktu hajjore yontu sénégal naaɓe e ko yowiti hen leyɗele takkiɗɗe jiiɗi hajjoyde donkiɗo kajjoreyi mawɓe lebunkoɓe wonɓe ɗo ɓe e wuuro me min ñahanto ceerno sawid mur kalnen nde min jehito makko ɓe kalnimo o dari ɓe yehi france ñaago yaada yoɓe nanɗu ɓe dokku sénégal bateau ɓe dokki sénégal bateau bateau o ar ƴetti hajjiyankoɓe sénégal fof o ardi délégation ŋaji ɗi لوارسنال ريكي فرانس ويدو بنجارام ويدري مينستر جيجيلو رولاسيون فرانس ويالتي اوتو بانجا ماج يعني انكو خب بيف ان هذا غري يود تشارو سيد نور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñi ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ci seen tour ak ci seen sant di ziar bu baax Thierno Madani Tall di ziar Serigne Mansour Sy euh, di nuyu suñu ministre d'État suñu xarit euh, euh, Mbaye Ndiaye di ziar waa BAP ci di leen gërëm aussi ci invitation bi ñu defal mu mu mel ni kon waxtaan bi ñi ngi ko war a def ci lu tubaab di wax crise des valeurs crise des valeurs bu fekkee ni jéem nañ koo tekki ci wolof mooy ñu xool yàqu-yàqu yi nga xam ni moom moo am ci jikko yi ak ci comportement bi ci suñuy pénc fii ci senegal wala ci àdduna bi jikko nag dafa nekk loo xam ni buñ koy saytu dafay nekk lu xaw a jafe ndax jikko ñu ngi ko jublu ci niñ koy apprécier ci lu baax loo xam ni dafay dàq lu bon kon bu nit ki defee lu baax dañ naan jikko ji rafet na bu fekkee ni dafa def lu bon wala mu wax lu lu ñaaw dañ naan jikko ji dafa ñaaw kon mu ngi jublu ci diggante lu baax ak lu bon li nga xam ne dañ koo dig digle nit ñi war koo def ak li nga xam ne dañ koo tere nit ñi war koo bàyyi ci ñi nga xam ni ñi ngi def li ñu tere nekk ci di ko def dañuy jàpp ni jikko ji euh, rafetul ñi nga xam ne nag li ñu digle muy lu baax ña nga ca dañ naan jikko jooju rafet na mais loolu bu ñu ko waxee ba pare premier problème bi ñuy am mooy dafa mel ni pénc bu nekk dafa am noo organisé woo dafa am charte yi nga xam ni moom nga am te mën na wuuteeg charte beneen pénc damay joxe benn exemple boo demee ci benn jamono ci ay indien ñenn ñi ay Kwakultu lañu ñeneen ñi nekk ay Zuni Kwakultu yi boo demee ci ñoom ñoom dañoo jàpp ni jël yëfu jàmbur jël alalu jàmbur sàcc lu baax la maanaam Kwakultu yooyu bu fekkee ni sàccoo ba raw mënoo am soxna pour ku góor maanaam ku góor mënoo am soxna tant que sàccoo ñoom dañoo jàppani sàcc boobu ñett yu yu baax mi ngi ci moom bu njëkk bi mooy ku am xel la maam pour nga sàcc rek il faut nga am xel bi ci topp ñu ni ku am fit la pour nga dem di dugg kër jàmbur wala ngay jël yëfu jàmbur il faut nga am fit bi ci des ku am kàttan la kàttan googu moo tax muy rëcc ñoom ñu ni ñett yooyu bu fekkee ni dajaloon na ci xale bu góor kooku war naa mën a jël soxna maanaam xel fit ak kàttan ñooñu mooy ko occulte yi boo demee ci yeneen indien yi nga xam ne ñoom ay zuññi lañu ñooñu dañoo jàpp ni sàcc baaxul ndax dañoo ne ki nga xam ne dafa sàcc ay ñaawteef rek lay def ñaawteef bi njëkk mooy buggul liggéey dafay fekk nit ñi liggéey ba pare mu bëgg a jëfandikoo lu nit ñi liggéey te moom du liggéey bi ci des ñu ni kooku mën naa indi na ndax bu fekkee ni dañ koo jàpp wala jàppuñu ko sax mën na jël euh, ngàndaay pour gaañ ñi nga xam ni ñoom la bëgg a jël seen alal kon ñii jàpp ni sàcc lu baax ñi lay jàpp ni sàcc lu bon la te ñoom ñëpp boo ko dee xool benn xeet bi la pour indi ni kon mbirum jikko bu ñu koy wax penc mu ne dafa am sa ay charte ak noo koy organiser woo ci charte yooyu nag ci la ñuy mën a xool ndax nit ñi ñu ngi jaar yoon wala nit ñi ñu ngi wàcc yoon euh, waaye li wóor mooy jikko moom mooy li nga xam ni moom mooy defar doomu aadama maanaam nit ki bu fekkee ni yaruñu ko nàndal ko ci ay yenn jikko yi nga xam ni mooy déterminer comportement bi muy am pour mu mën a nitee dafay xaw a jafe loolu tamit am nañ ci tegtal dafa am benn borom bu Lucien Malson bu bind benn téere bu les enfants sauvages te loolu histoire bu réel la lu am la lu nekk la dafa am ñaari xale yi nga xam dañu nekk ci pénc mi nga ni ni bu ay bu am ay indil jafe-jafe pénc mi maanaam waa pénc ba am mu am yermandi ci cheikh parce que fofu ku am cheikh rek dang koy fat da ngay fat xale mom mu am cheikh nak dal di len di ñewantal bañ na len a mu jël len yobul len ba ca all ba dal di len fay tek bimu len tege ci all ba nak ay mala ay golo ñom ñoo for xale biñ len foré nampal len tété len ñu nekk ak ñom bañu mag gone yoyu biñu démé ba mag dañ doon comporté wu ko ay golo manam dañ doon yé ci garab yi comme golo yi di lek yi golo yi lek ba paré di mëna waxtaan di mëna waxanté ak golo yi ay rëbb ñoo nga xam ne dañ demoon ci àll bi di rëbb ñoom ñoo dem daal di gis ni ñii ay gone lañu ay nit lañu duñu golo ñu daal di leen di fexe ba jàpp indi leen biñ leen indee ñu ne nañ leen yaraat defaraat leen ba ñu mën a nekkaat ci biir pénc mi nekk ak nit ñi waaye pexe yooyu ñu jéem mujjul sotti ndax balaa muy mën at ñoom ñaar ñëpp faat nañ ba nga xam ne am na ñu nga xam ne dañu ni ndax gënul woon sax ñu bàyyi leen ñu continuer di dund ak mala yooyu kon li muy indi foofu mooy nit ki bu fekkee ne yaruñu ko ci biir pénc mi def ci moom yenn jikko yi teete ko gunge ko boo moytul mu mujj mel ni mala yi ni ñu mel moo tax Lucien Malson di wax ni l'homme n'est homme que parmi les hommes maanaam nit nitewul bu fekkee ni dundul ak nit ñi ba nit ñi def ci moom waajal ko mu nekk nit ku mat sëkk léegi nag kenn ku tudd Evans Pritchard bi muy bind téere l'annuaire nee na dëkk yooyu ñun suñu dëkk yi boo ñëwee dangay ngay nekk mbokk wala nga nekk noonu maanaam faw nga ñëw bokk ak ñëpp lépp wala bu fekkee ni da ngaa bañ a nekk mbokk nag ak nit ñi bu boobaa yow noonu lañ lay jàppe mbokk moom ak mbokkoo dafa nekk loo xam ni dafa am solo mbokk boobu nag moo doon indi solidarité bi maanaam jàppantelen jàppalante bi nga xam ne euh, moo doon dox diggante nit ñi ci pénc yooyu beneen bi ci des mooy cër bi ñu doon jox mag mag ci pénc yi dañ ko daan jox cër dafa am waay juy nettali ni euh, benn benn góor dafa nekkoon ci dëkk bu am ay jafe-jafe dëkk bi daal dañu dem nawet tawul nit ñi amuñu lu ñu lekk nit ñi sonn lool góor gi xëy bis daa di jël mbaamam daa di teg ci kaw mbaam bi benn saako dugub daa di jël soxnaam teg ko ci kaw saako dugub bi moom muy womman mbaam bi daa di topp àll bi nag pour seeti beneen dëkk bu gën a naat kon moom mu ngi mbaam bi ci kaw mbaam bi mi ngi ci teg saako dugub ci kaw saako dugub bi soxnaam mi ngi ci toog muy womman bi mu demee ba ci diggu àll bi dajeeg benn waay waay ji ni ko damaa bëgg nga jaay ma sa mbaam bi ak li mu sëf moom li mu comprendre mooy jaay ma sa mbaam bi ak saako dugub bi ñu waxaale ba d'accord mu fay ko xaalis daal di koy jox mbaam bi ak saako dugub bi moom jël soxnaam waa ji ni ko déet bi may waxaale yow dama ne la nanga ma jaay sa mbaam bi ak li mu sëf te li mu sëf saako dugub baa ngi ci sa sa soxnaa ngi ci donk lépp laay jël waa ji jël lépp daal di dem ngóor si continuer dox moom kese ba yegg ci benn dëkk bi mu ñëwee ni damay laaj ki gën a nekk mag ci pénc mi manam mag bi nek ci penc mi lay laaj parce que dama bëgg mu lijeentil ma sama problème bi mu am ñu tektel ko benn kër ni ko boo demee mooy euh, kër gële mooy ki nga xam ni moo mag ci penc mi bu demee ba ci kër ba daal di fëgg benn xale daal di koy ubbil mu ni ko ana sa maam mu ni ko sama maam dafa tukki te daa yaakaar mu mu ñëw léegi da nar na faa yàgg daal di ko loo koy doyee mu ni ko li ma koy doyee yow mënoo koo lijjanti ndax da ngaa nekk gune mu ni ko teeg maa wax rek mu daal di koy nettali problème am mu ni ko li ma expliqué daal dafa mel ni buuse bi nekk ci dëkk bi mooy def lu mel noonu yow itam da ngay dem ca fa muy jaayee ndawal boo demee di nga fekk mu rey nag nga ne ko nag jaay ma sa bopp bi moom day yaakaara ni bopp nag bi lay ngay waxaale fekk boppam nga ko wax bi mu demee daal di ñëw ni borom buuse bi ni ko ah yow yaa ngi soog a rey nag bi nii dama doon waxaale sa bopp bopp bi ñaata nga koy jaay ñu waxaale ba d'accord buuse bi yëkkati bopp nag bi di ko jox mu ni ko déedéet waxuma bopp nag bi sa bopp laa waxaale ngóor si ni ko yow daal dafa mel ni sa soxna laa jëloon sànq léegi dama la koy delloo nga bàyyi maag man sama bopp mu dem ca xale ba fekk ko fa naka nga def ba am pexe mu mel nii bu ma génnee ci situation bu ma nekkoon mu ni ko sama maam laay dendal bis bu ne fu mu ne maa ngi toog ci wetam di waxtaan kon mu mel ne euh, mag dañ ko doon jox cër ci pénc mi mu nekkoon lu am solo ci pénc moom bi ci des moom mooy ñi ñu doon yaree ci biir kër ni ñu doon yaree ci biir kër xam nga dafa am benn borom xam-xam bu tudd kamaralaay bu bu bind l'enfant noir kamaralaay boobu nee bi muy nekk gune nekk tuut tànk ndeyam ak baayam dañ ko doon tere yenn waxtu yi mu nekk ci biti dañ ko doon wax waxtu añ ak loo mënti jàpp bàyyi ko nga ñëw ci kër gi waxtu reer ak loo mënti jàpp bàyyi ko nga ñëw ci biir kër gi mu ni bi ma demee ba màgg laa xam ni waxtu yooyu ndeke ne waxtu yoo xam ni la dañ doon añ dañ doon reer dafa am jikko yu ñu doon def ci man mu ni bu ñuy ñëwee ndey ji day taat tey teg ndab li ci suuf li muy njëkk a lijjanti mooy na muy toogee mu ni naa toog toog bu jub toog bu yiw toog bu sell ginnaaw bu ma toogee toogin boobu ba pare mu ni wéy jur yi dañ ko doon wax ndab li na nga ko jàpp ak sa loxo ndeyjoor euh, sa loxo càmmoñ ndax ndab li warul yëngu dafa war a taxaw benn place warul yëngu mu mel ni ndab loolu mooy société bi société bi ku ci ne war nga koo téeg sa loxo càmmoñ ba société bi du yëngu ginnaaw boo ko téeg sa loxo càmmoñ nag ba pare ñu ni ko sa loxo ndeyjoor rek ngay lekke te sa loxo nday ndeyjoor boobu sa kanam dong nga war a yam waroo lekk kanamu jàmbur man dama def benn conférence université Dakar ci tem lu tax dawalkatu Sénégal du ñu respecté code de la ma ni dañoo lekkatul ca ndab maanaam ki nga xam ni ca ndab lay lekk ñu ni ko sa kanam dong ngay lekk walu lekk ci kanamu jàmbur sa loxo warul jaabante ci diggu ndab li kooku bu màggee mën nañu yaakaar ni bu dee dawal dina yem ca kanamam ndawal nga ca diggu ndab la ñu ni mag ñi dong ñoo am droit laal ko mooy respect bi ma doon wax mag ñi cër yi ñu joxoon mag waaye mag ñi amoon nañu xel mu toll ni dinañu dagg euh, ndawal teg ko ci kanamu xale yi mu ni bi ma demee ñu ni ko li ngay lekk waroo koo tuur ñam li waroo koo tuur ndax yow yàlla baaxee na la nga jot ci ñam ji am na ki nga xam ne jotu ci kon war ngaa wormaal ñam jooju waroo lekk di wax waroo lekk di xool keneen ci euh, euh, bool bi naka naka la toogeek na muy lekkee loolu yëpp mu mel ne ay baax la yu ñu doon def ci moom ci biir kër gi jamono jooju nga xam ni moom lañ ko doon yar ba nga xam ni nee na bu mësaan a génn day nekk koo xam ni li muy wax lu yiw la li muy jëf tamit yiw la mu mel ni kon jikko bi dañ ko doon gis ci wax ji dañ ko doon gis ci jëf ji mu nekk lu lu lu am solo ci ci pénc yooyu. monsieur le ministre d'État euh, dafa am dimension bu bu bu bu xóot bu mu bu mu yëkkati sànq mooy ñu tënkaat suñu bopp ci diine te dellu ci diine te bañ cee am benn complex gis nga Malraux dafa nekk boroom xam-xam bu ñu jox cër ci France mu nekkoon ministre de la culture ci France Malraux boobu dafa ni le vingt et unième siècle sera religieux ou ne sera pas nee bu ñu tollee ba vingt et unième siècle dañuy dellu ci diine wala ñu torox.

fi may mujjé mooy ñu xoolaat ni ñi rëddee suñu penc yi xam nga tey jii lu doy waar moo moo mën a am dëkk bu mel ni Dakar Dakar 550 km carrés la maanaam ci réew ci région yi nekk Sénégal yépp Dakar moo ci gën a tuuti 550 km carrés 550 km carrés Dakar yi ci gën a tuuti ñi nga xam ñoo dëkk Dakar ñi fi yeewoo bis bu ne ëpp nañu 4 millions ci ay doomu aadama nous ñu dëkk Dakar ñoo ëpp waa Gabon yëpp boo leen boole te Gabon moo gën a yaatu Sénégal yëpp boo ko jëlee Sénégal 197 000 km2. Dakar euh, Gabon 267 000 km2. donc Gabon moo ëpp fuuf Dakar waa Gabon boo leen boole 1 800 000 habitants la ñu Dakar nekk plus de 4 millions d' habitants maanaam Dakar ëpp na ñaari yoon waa Gabon yëpp boo leen boole mais yooyu tamit dafay indi ay jafe-jafe faw ñu fexe ba. pénc ci maanaam gox yeeg gox goxaat yi ñu wut pexe yoo xam ni euh, nit ñi ña fa dëkk danañ fa mën a toog di wéy ca maam yaak maamaat ya la nga xam ni moom la parce que nit ñi bu ñu commencé bàbbeeku ñëw daal di dajaloo fenn tampaloo fa ak duggante bi yenn saa yi mu indi ay ñaawteef yoo xam ni dafay naqaree li jënti maa ngi leen di gërëm di leen sant di jéggalu ci kàddu gi jërëjëf. Thierno Madani maa ngi lay ziyaara di ziyaara suñu sëriñ bii fi toogal xalif général Tijane sëñ Mansour ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax ak ziyaara ñëpp ñu fi nekk parce que ñun seen taaliba lañu séeréer lañu mais dañuy provoqué tey Haalpulaar yi suñ borom tabaaraka wa taala bokk na ci li mu wax ci alquraanu karim di waxam kullu shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin comportement yi nga xam ne nitu yàlla yi démb ak barki démb daanañ ko am mu ngi doon sukkandiku ci alxuraanu karim bokk na ci loolu lu ñu fi metti li léegi ci film bi suñu maam Cheikh euh, Omar Foutiou ne dafa toog benn bés benn xale ñëw tàppate ko teg loxoom ci kawam am ay wax yu wax mu mu ne teg xoolaat xam ne suñ borom wa taala ba muy wax ak doomu aadama yi ci alquraanul karim ci suuratu yaasin wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qaal yaa qawmi atabiul mursalin foofee la sukkandiku xam ne kii du nit ordinaire yàlla suñ borom tabaraka wa taala moo ko jaarale ci moom pour mu ñëw am lu ma wax deuxième exemple bi nga xam ne royuwaay la maam alaaji malik radiallahu anhu ba mu demee aji makkatal mukaram ba pare dem medina toog fa ak diir sama xarit yàlla yàlla yokku leeram abdou aziz al amin moo ma ko nettali mais bu xëyee dem bu jullee ba pare wéet ak boromam ci alxuraanu karim di def ay ñaan ci xabru muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ba benn bés suba teel am benn yaay ñëw arab ne ko yow yaay kan mu wax mu ne ko foo jógee mu wax fi mu jógee Sénégal mu ne ko lii ngay def de baax na lool mais dellu foofee nga jóge def fa lii ngay def fii njëriñ li muy amal diine islaam ah, xamoo sax na muy toll mu xoolaat boppam ne yàllaa ngi may may ma fàttaliku wa jaa min madinati rajulun yas'a qaal donc jullit nitu yàlla comportement am dafay war a ak li nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala ci alquranu karim def ñu ci jox ay tegtal ay misaal ba tax euh, beneen provocation halpulaar yi toujours dañuy wax Thierno Seydou Nourou Tall comme ba mais c'est aussi un il a fait la Mecque suñ borom tabaraka wa taala ci les cinq piliers de l'islam wa hajjul bayti liman istada ilayhi sabila mais moom yalla def ko may ni remplir condition bobu dem aji makka su serigne sëriñ mu ngi may wax sànq ne ah sëñ Kébé c'est euh, Hadj Seydou Nour tout ceci pour dire que la symbolique du référentiel coranique dans les valeurs sociétales constitue la référence la plus sûre pour l'humanité. Ça, c'était ma contribution, c'est ma petite contribution de ce que le Coran doit être pour nous. Mais les Guinéens, Massalou Mboubou, euh, ministre d'État auprès du président la République pour wax leen ne salaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi man dama xaw a lot su ma bëggoon am ay baat yi war pour mën a waxtaan tey ci góor gu tedd gi di suñu maam Thierno Seydou Nour dama naan duma ko am ma jàpp ne bis bii même buñ ko tuddewul woon maam Cheikh Al Hadj Malick wala ñu tudde ko ko te yëgaluñ ñu ko sax ñun dañ cee war a teew xam ngeen lu tax mooy li imam doon wax léegi diggante maam Cheikh Al Hadj Malick ak ak diggante maam Cheikh Al Hadj Omar ak maam Thierno diggante bu yàlla def la maam Cheikh Al Hadj Omar bi muy wër di tasaare diine di def jihaad ba ak si Horefonde suñu maam Alpha Mayoro daf ko dégg. ne góoru yàlla gi ma doon dégg ci tund wii wala ca tund yële dégg naa mi ngi xoor a fonde waaj ànd ak délégation bu am solo ba muy dem suñu maam faa wàddu bokk ak moom ndey ak baay di yaayu maam Cheikh Al Hadj Malick yaayu daara la woon moo daan togg moo daan fóot moo daan def cuub moo daan def ëcc di jàppale daara ji bi bi ko góor gi tàggoo ne ko damay dem Hoore fonde jëli wird ci Cheikh El Hadj Omar Al Fouti jigéen ñi baax ñi dañu daan bëgg nitu yàlla yi di sàkku seen ñaan di sàkku seen ngërëm mu dajale hadaaya yu bare bare bari ne ko boo demee nga jox ko góoru yàlla googu ne ko maa ngi jaayanteeg moom maa ko jox lii maa ko ko jàppale ci jihaad ji mu nekk bëgg naa nag mu ñaanal ma yàlla te booba demoon na sax ba yaakaar ne dootul dugg ci néegu sëy xissa ba gudd na gudd na waxtu yu du ko may mam Cheikh Al Hadj Omar ba mu jotee hadaay yaay ak la ci xew yépp mu ne ko maa ngi ñaanal sa jigéen boobu bis dana ma sa ñëw mu duggaat ci néegu sëy dana am doom ju góor Malick lay tudd fi ma yem ci tariqa bi dana ko àggale am lu mu bind ci ay mbóot ak i secret jox ko maam Alpha ne ko bis bu sa jigéen boobu ak doom jooju ñëwee mu dem ba toll ci waxtu sàngam na ko teg ci loxoom maam Cheikh Al Hadj gën gane àdduna maam Alpha yor ko jàngal ko Alquran jàngal ko xam-xam jox ko tariqa bi ne ko lii nag sa ndénkaane loo xam ne bañ la koy jox booba yow gëneeguloo àdduna moo tax maam Cheikh Al Hadj Omar. مام شيخ الحاج مالك لبم شيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه دانا وخني بروم خم خمي بن خيتو تي بن مساله لو الحاج عمر وخرك من مولا واخ دانا وخني سلاسل يما ام تي طريقه تجانيه برنا واي اكتفي بالسلسله العمريه كما يجوخ ورد كوماي دفل اجازه كوماي دفل تقديم مانكوي جوخي تي السلسله العمريه kon bu bis bu toll nii amee ñu jagleel ko maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu xalifa bi am ngant nekkul senegal yaboot yabal njabootam ñu ñëw ci bis bu sell ni waxtaane mam Cheikh Al Hadj maam Thierno Seydou Nour ci crise yi nga xam ne moom la senegal di dund du senegal rek àdduna bi yépp la muy ñaa boo xam ne. الازمات الخلقيه والانحرافات المجتمعيه فوف دما في تخاو توتي رك بوكو وقت ما يوان خيمة نو غن تي سوري وايي دما لال تي لان موي انحراف ما هو الانحراف ndax crise pour mu am li koy waral mooy inxiraaf dafay am bu nit ki jàddee yoon wiñ ko tëralal mu war cee jaar te jaaru ci bu amé crise moko tek teg kon al inhiraf modi niko borom xam-xam yi tere moo di al mayl wal khuruj an الطريق المرسوم المؤدي إلى المكان المقصود انحراف mooy ñu tëralal la aw yoon ne la jaaral ci yoon wii benn yoon wi di yoonu suuf ñu ne la jaar ci boo ci àggee boo ci jaaree da nga dem ndar walla muy piste wala muy goudron que ce soit muy autoroute wala autopiste ñu ne la jaaral ci kaw yoon wi defaral la yoon wi nga dem ba mu neex la nga ne man damay wàcc yoon wi jaar ci ñell wi bu sa pën bu sa pënu bëttee wala nga dal ci aw xeer wala nga dugg ci kàmb wala nga daanu yaa jàdd yoon wi saxaar gi lay yóbbu ndar mënta daw ci suuf raay lañ ko tegal pour mu jaar ci bu déraillé problème am ba ci bato bi nga xam ne yaa ngi ko gis ci kaw ndox mi muy dox nga defee ne dafa topp njëxam di dem déedéet am na xat mustaqim boo xam ne moom lañ ko defal rasm su ko jàddee am problème léegi dem nañu ba xam-xam avancé bu baax a baax ba ñu am ay GPS yoo xam ne waa ji buy départ rek fa tabarakallahu buy départ rek xam na fi mu jëm xam na yoon yi muy jaar bu ko jaar day am problème ba ci avion yi avion bi nga xam ne mi ngi décollé fii ci Dakar tour de contrôle ànd ak moom di ko accompagner ba këram muy jóg ñu nan ko jaaral ci nangam sa altitude na nekk nangam waaw sa vitesse bu mu dépassé nangam. ba keroog muy génn Sénégal tour de contrôle bu Sénégal pare pare jox ko bu Mauritanie su paree jox ko Maroc jox ko Algérie wala mu jox ko Espagne yoon yooyu ñu ko teg ñu koy tuddee VOR su ko wàccee avion bi am problème ci wàllu àdduna li ñuy tuddee code de la route bi ñu defar wax chauffeur bi ne ko jàng nga code jaaral ci yoon wii bul ko wàcc sa vitesse bu mu dépassé nangam. place sangam bu fa dépassé oto fii sens unique la a droit jël beneen sens bi boo dikkee ba ci rond bi na nga bàyyi ki am mu jàll gis nga yooyu bu ko respecté jàmm dafay am mais bu ko respecté wul ci accident la ju dëkk ak rayante loolu mooy indi crise wa kadalika kitaabullahi nag nekk noonu itam ci wàllu diine yàlla mu bind doomu aadama xam ko daf ne teg naa la ci yoon woo xam ne man seen borom ci laa nekk إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يالا نينا يون وي مالين دي وو نين دي نيان بروباتيك لين سي مام سين بوروم سي لا نيك سوموكو باي ادنا بي يق يالا دا فا باغ با بوك سي اي تورم العدل مانو تيغو سي يون دوكو جاد موك يونتي بيما يوني سي يير ايتام ياس